asalaamaaleykum mbokki Sénégal tey nak dañuy waxtaan ci walu citoyenneté walu patriotisme walu construction civique. Euh fiñu ko nak da fay forum bo xamni ay ndawi Sénégal ñoko fi def waaye dañu ñëw déglu leen pour ñom ñu wax ñu ni ñu gissé sen bop en tant que ndawu Sénégal Liñu japp ni mo nek ci ñom ci ay valeurs ak vertus ak fiñu bëgg yobbu Sénégal ëlëk bu fekkente ni jox nañ leen condition yi mu laaj li nga xam ne moo tax ñun ñu jiital la construction citoyenne ci lépp lu nit di bëgg def pour développement économique et social moo di da ngay defar nit ki ba noppi nit mooy defar réew parce que ay jikko mooy liy changé ak liy wuutale réewu àdduna bi yépp booy gis ñu wax réewu asiatique yi wala yeneen réew ci àddina bi yu raw Afrique ëpp ñu ñu ay ressources naturelles ëpp ñu ñu ay boroom yéene ëpp ñu ñu sax léeg-léeg ay boroom xam-xam da fa fek valeur yi ñu def ñom ci seen nit ba mu am lu ñuy jomb ci yaq ak salfañu seen alalu rew jombalé seen bop di toroxal seen morom def ko ci ñom ci ay valeur ak vertu ba ñu mëna am solidarité ci seen wa rew bëgg seen institution respecter seen loi ak seen règlement loolu lu ñu jëmbat ci ñom la motax wolof mu naan jikko jikko moy jikko jikko moy sem la graine dañu wara a semer la bonne graine ci doomu aadama yi surtout ci xalé yi motax projet bi nga xamni am nañu ko dafa am lu am solo lu muy def ci l'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire obligation les doon tay dina am éducation morale civique et citoyenne bohamni, xamni bo duggé école ba kérok ngay dem lycée da nga koy jang mu nek une obligation matière bi am solo comme ni ko mathématique amee wala leneen am ko di nga jang environnement di nga jang solidarité respect des institutions patriotisme ñu mooñaale ko ba bu dem sur une génération fek sénégalais bu am li xale yana ñëw mar doon wax sénégalais nouveau type de sénégalais té ñun ñu waxon taane won ko ci assise nationale muy sénégalais de type nouveau bobu sénégalais lañu bëgg indi parce que koko moy nit ki nga xamné mo porter le développement économique et social du Sénégal defar nit ki pour mu défar réew être avant l'avoir peut être la base d'un nouveau projet de refondation bu sénégalais di moomaat sénégalais yi Jamalante, Yenente yénente jàmm te duñu ko jéggaani ko ci maam borom Touba ñu référence maam Maudo, maam Bou maam Baye maam Limamou, ak ak ressources spirituelles et morales man damay faral di wax ni li gën a am solo ci réew pour defar ko du rek le pétrole et le gaz du rek le zircon du rek le foncier du rek les ressources forestières wala halieutiques c'est d'abord les ressources spirituelles et morales d'un peuple kooku mooy la base qui peut développer un peuple leneen lu ñëw rek day tax yombal sa transformation économique et ton développement matériel loolu laa amoon pour indi leen ko tey di leen sant di leen gërëm. bravo continuez comme ça.